ajaa jëf sëriñ saaliwoo man bu lay fal dalay aar ñagal la borom ba ba yàqu doo yàqu leeti mbir jag nga am ndam sëriñ bi saaliw sampam du daanu borom ba bu nit ñépp booloon di sempi borom ba malaaka yeeg jinne ànd dem ci borom ba du ta samp ba daanu yàlla borom ba pexem yàlla moo tiim pexem nit borom ba ba yàllay pexe niin xewul nag ñaan yaa ko wuuteeg dogal yi borom ba ba muy xew-xew woon sëriñ bi borom ba lu nit ak lu yàlla seex bi bokkul sawaaja bokkul ci gaañi borom ba sëriñ saali way kenn waaji borom ba amul mis lu jëf jaa ngi siw na borom ba bu leen jum bu leen reer saaliw kenn rek la seexal borom booba wàcc saawa nag wi wenn la borom ba sëriñ saaliwoo ko wax bu leen jaawale cant kee bu leen fàtte jàng lan fi daaw